comme ni nga ko waxee léegi Cheikh Anta tey ji dañu ñëw daje si fii ngir euh, teeru si le président de la république parce que ku ne xam na ne bu gàmmu tollee fii président bi da daan ñëw euh, seet si sëriñ bi euh, nemmeeku ko ndokkeel ko ci bis bi nga xamante ni ci lañ jëm moo tax tey jii ñu def mobilisation bu mag a mag ànd koog waa population Tivaouane yëpp pour génn teeru président de la république ndax nag président mérité na. wax dëgg yàlla ñu teeru ko teeru bu rëy ndax ku ne gis ne li nga xamante ni defal na ko dëkk bi nga xam ni moom mooy ci Tivaouane moo tax tey def nañu mobilisation bu mag boo génnee ci tali yi di nga gis ni xale yi ñu nga fa yor ay pancarte yu bari pour wan ni ko daal kontaan nañ si ñëw bi te incha allah ñu ngi lay dalal jàmm moo taxoon ma ñëw ci salle bi sax di xool si situation fi mu toll Euh, te yaakaar naa ni incha allah balay président di agsi salle bi dina fees ñëpp dinañ génn teeru si ko ah, waaw euh, wax nga dëgg ci Anta c'est vrai que assainissement bi xaw na am ay jafe-jafe euh, li jëm ci yi nga xamante ni mooy mbalit bi nga xamante ni moom mooy génne ci kër yi boobu sax daanaka lu bëree bëree bëri en tout cas mi ngi avancé ndax ñi ngi jël mbalit mi ñu ngi koy yóbbu waaye ba léegi fañ koy yóbbu bërëb ba pareegul moo tax loolu itam ba tey dafay indi ay jafe-jafe même boo xoolee sën yi nga xamante ni dañu waxoon dañ koy dindi completement euh, def fa li ñu tuddee ay point de regroupement normalisé ba léegi travaux yi ñàkk a yegg moo tax daanaka pratiquement foofu ñu am fa ay jafe-jafe mais ci côté boobu am na avancé yu bëree bëri fi ñu gën a am jafe-jafe mooy ci nga xamante ni mooy assainissement eaux usées yi mooy ndox mu bon mi nga xam mooy génne ci kër yi waroon nu war def ko canalisation mu dem di dem fa nga xamante ni mooy sa station d'épuration ba foofu tam wax dëgg yàlla travaux yi sooxe na bu baax a baax a baax ba tey ji sax dina indi gàllankoor ci do ci dem beeg dikk bi ndax ku ne xam na ni booy def assainissement eaux usées da ngay gas mbedd yi da ngay dagg tali yi te yooyu ñu ko def nag tey jii indi na gàllankoor mais euh, en tout cas société bi xamal nañu ni incha allahu rabbi dafa tombe rek mais bu ñu génnee gàmb gi dañ ko gën a accéléré ba nga xam ba nga xam ni bala ñuy àgg gàmmu déwén incha allah am nañ yaakaar ni dina pare waaw loolu moom wax dëgg yàlla waxtaan nañ ci sax bu yàggul dara ba xam ba ñu xamal ni ñu carrément ni nawetu déwén moom incha allah bu ñu fi yàlla bàyyee dina tombé gàmmu Tiwaawan kon wax dëgg yàlla bu ñu jëlul matuwaay yi bu ñu àggalewul li nga xamante ni moom mooy travaux yi mën na indi gàllankoor yu mag a mag jàpp naa ne loolu nag le maire de la commune euh, monsieur le maire Diagne Sy dina ci jóg le préfet du département de Oussoudiop pour que enfin ñu mën a euh, euh, régler situation bi ndax nawet moom bu tombeek mu am ay travaux ay d'assainissement surtout ñu gas ay mbedd dag ay tali te yéegul dina indi gàllankoor bu méttee métti te gis nga ren ji dëkk bi ni mel ak ñax ça mooy wane ni daal nawet bi sax soriwul loolu donc bu ñu jëlul suñu matuwaay yu bari rek mën na indi gàllankoor te incha allah jàpp naa ni dinañ jël matuwaay yëpp pour que nit ñi bu déwéneeg jàmm bu ñu ci yàlla tombale ak nawet ñu fexe ba kenn bañ am jafe-jafe ñëw gàmmu ci jàmm dellu si. waaw euh, centre intégré de valorisation des déchets bi Babacar wax nga dëgg moom it wax dëgg yàlla heure bi defoon nañ ni sax dina fekk mu fonctionnel dañu fekk mu pare ba ni ko mënu ko jëfandikoo mais yàlla def na ba léegi euh, am na tardement am na yéex-yéex te koofu ñu ngi ci def euh, comme ni nga ko waxee du tolloog ñeenti milliards ak ak ak xaaju million ak xaaju milliard maanaam 4 millions 4 milliards loolu nekk na loo xamante ni alal ju am la. kon ñi ngi ñaan daal di ñaan eh, autorités yi ñu jàppale ñu ci ba loolu mën a yegg ndax bu yeggee eh, du jariñ Tivaouane rek sax waaye dina jariñ tout la région ndax région bi yëpp ku ne xam na ni benn centre intégré et de valorisation moo fi nekk su boobaa li ñuy wax même intercommunalité dañ ko mën a def ngir dëkk yi nga xamante ni am nañu problème mu mbalit ñu mën di ko indi ba Tivaouane di ko fi defar eh, di ko transformer pour delloo delloowaat ko ci askan. di nous devons recevoir aujourd'hui le président de la République. qui doit venir aujourd'hui à Tuaon pour faire sa visite auprès des marabouts. Donc euh, nous nous sommes réunis à deux reprises euh, au niveau de Tuaon pour lui préparer vraiment un accueil chaleureux, euh, une mobilisation forte parce que aussi le président mérite vraiment une mobilisation forte de la part des populations tuanoises. C'est pourquoi aujourd'hui nous sommes là et nous pensons que le président sera content parce que nous avons en tout cas déployé tous les moyens nécessaires pour que accueil chaleureux soit réservé au président de la République. Bon, oui, par rapport à l'assainissement, comme vous l'avez si bien dit, en ce qui concerne les déchets solides, là nous n'avons pas assez de, de, de problèmes parce l'UCG quand même, nous parvenons quand même à régler certaines difficultés. Peut-être là où nous avons un peu de difficulté, c'est au niveau de l'assainissement des eaux usées. C'est des travaux qui ont eu à démarrer depuis bientôt des, vraiment, euh, nous avons constatons qu'il par rapport donc à, à l'avancement Donc ça a causé d'énormes difficultés parce que qu'aujourd'hui, pratiquement toutes les rues ont été euh, en tout cas creusées. Il y a des traces qui ont été en tout cas faites au niveau de ces, de ces rues-là et ça pose problème, euh, surtout au niveau de, de Médine, au niveau de Ndout. Euh, nous voyons que là où l'assainissement, euh, en tout cas les travaux se déroulent, nous avons des problèmes de mobilité. Et on l'avait souligné avant le GAMU, mais Ils nous avaient dit qu'ils allaient terminer tout avant, qu'on y arrive. Mais c'est comme ça, avec les, travaux, c'est toujours comme ça. Mais nous pensons que ça sera dépassé avec le Gamou, malgré les désagréments qu'on a connus, et, mais nous pensons que ça sera dépassé. Absolument. il faut tout de suite, euh, en tout cas, s'y mettre. Sinon, nous risquerons, en tout cas, d'avoir euh, toutes les difficultés du monde. parce que comme vous l'avez si bien dit, nous sommes sûrs que l'hivernage de l'année prochaine va coïncider avec donc, le, le Mauloud. Donc si les travaux ne sont pas acheminés, vous voyez ce que ça peut faire. Nous pensons que d'ici là, en tout cas, des efforts seront faits pour que éventuellement toutes ces difficultés-là soient dépassées et que euh, qu'on ait en tout cas un assainissement de, de, de qualité et que les gens viennent euh, sans difficulté faire leur gamou avec euh, en tout cas moins de problèmes.